sen site Dakar Matin molen len di may sen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbali yi yéenekaay yi ak yéenekaay di Dakar Time bi nga xamne mi ngi mengale building administratif ak buildingu sàcc buildingu ger nee nena nak la fa xew ben building administratif bi ñuy réfectionné kay bi Dakar Time dañu xamal ne contrat numéro T14 13 ñu signé ko 12 juillet 2013 notifié ko août 2013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 jarna naa jommi source a ne kay li makki def jënd 65 agents blindés ay auto yo xamne gendarmerie la jox anti émeute ngir xex ci jëm ci présidentiel bi nga xamne mom lañuy wajal ay ku fi yëngatu xex la Macky Sall nara def fim nek ni ci gendarmerie sax lañuy wax ndax yene kay bilesi ko delusi na ci li nga xamne xewon na sa jigen shor neena dañ dañ mim wante wa pastef wax nañ turu gendarme bi mi ngi tuddu nicolas mendy yoron auto dk 44 mom mo demone ci keuru yaayu sonko di titalate nangu fiche de parrainage yi juróomu jege yàlla Ousmane Sonko kenn ki sax rakkam la moom ci boppam gendarmerie déglu na leen administrateur bu Pastef di Birame Souley Diop moom dañ ko woo déglu ko ay waxtu doog ko libéré ñu koy tuumaal nag ne dafa weddi lam waxoon ba mu demee gendarme mën a dara du ci dëgg ku wax loolu da ngay kàcc musuma regretter wala di présenter excuse kenn présidentiel 2019 teewoon am nañ candidat kuy seen candidat Macky Sall loolu la ñu yéene kaay bi di laas wax ku ko xamle Pape Malick si ci yene kay bi du l'observateur neena nañu and ak ki di Macky Sall gungé ko lutax ci bir vox populi lañu ko xamalé neena Macky dafa def tiawon lu ben président Moussa source A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

yene kay bi les échos jot lañu xibaar bi ñoom daal dóor nañ fa benn sénégalais omar wat 31 ans la am ba mu ci comment nekk ci fii ci fan élément yu français yooyu nag da leen téye garda bi rek ay waxtu bàyyi leen mu nekk lu jéggi dayo surtout sanitaire yi hôpital yeeg fi ñuy fajoo yépp le 25 le 26 dina yëngatu lool ndax grève fay am yene kay bi di laas moo ñu ko yëgal kam na